magal gi de biñ ko tàmbalee léegi xawna na lool war na toll ci ñaar fukki at ak ñett japp ñaar fukki at ak aha fofu lay wara a toll waaw magal nak euh bari na solo lool bari na ay yu yu ci nek ndax suñu yaakar la na Xaadimu rasul lu mu am rek ci boromam ci bes bi la ko amé motax mu waté won né nañ ko ci santalé yalla ndax jay sasin 18 safar ci atum jay sasin ci la tàmbali woon liggéey bi tubaab bi jàpp ko génne ko ngir la mu jaayante woon ak ak yonent bi ci tekku nattu yiñ ko war a teg ak liggéey bi mu war a liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir garaatu xaadimu rasul mu mën koo jot nekk asna xadim asna xadimul Mustafa muy jawrin ji gën a kawe nga xam ne li yonent bi toolu yonent bi daal mooy doon jawrini ñëpp maqaama boobu la wuti woon ci géej gi te ci la ko am moo tax bi mu demee ba am lim lim doon wut ba yàlla teggi nattu yëpp ci jurbel ci la woote ne nañ ko santale yàlla ndax li ko yàlla defal ci ay yiw daal xeeb na ci boppam dafa bëgg julliti yàlla yëpp ñëw jàpp ci cant gi mu waxoon ne nag cant gi bernde lay doon ku ko mën ku ne na nga togg aw ñam bu baree bari jox ko doomu aadama yi ñam wi na bari na neex te bu ci am xëj ak seen ku ko mënut nga togg aw ñam jox ko sa waa ku ko mënut nga fekk ku togg nga lekk ci ba suur waaw loolu mooy solo si màggal nga xam ne li ci nekk ci ay yiw ak tiyaaba daal bari na lool ndax li ñu am ci sëriñ bi lépp màggal a tax ñu am ko ndax soo déggoon ni génnul moog ñëpp yem kon kon moog ñi fi nekk yem ndax maqaam boobu ñu bari waxaale woon nañ ko waye natt yi ci tege dafa dafa xawon dis. xamna nyu ñu bëree bëri buñ ko jëlon tay seen bakkan mën na ca def ndax duñ ko atal ah bëri nañ ko waxale dal waye dañu mujj delu gannaaw ah kon bés bu màgg la ci yoon mu waaw lool de pas passu taalibe rek la ndax lu ci ne rek ñaqu taalibe la ak seeni hadiya amul fenn fu ñuy dem dal talal fa loxo mm, di di ñaan dimbal wala ñuy sakku ñu fi jappalé waye taalibe nak nag nañ leen ci liggéeyal yalla ak joxe seeni ñaq ba lu ci ne rek suñ ko dee def dana woyof ci ñoom toy looloo tax nga gis internat boobu ñu def ko di fa jàngale eh, ci lu dul ak pay nga xam ne paj maak dundubaak baag yëpp ak fayu ñuy jàngale lépp daara jee ko yor lu ci ne rek taalib yi ñoo koy ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko gàddu ah, fajukaay boobu tamit ñoo ko tabax ba mu toll foofu yeneen yi ngay wax yëpp lu ci ne rek njàmbaar ak taalib daal ak seenu tàggatu ci joxe ak liggéeyal yàlla ndax Euh, xidma moom dafa daa doon ponk bu mag a mag a mag mag ci yoonu murit ah daa doon ponk bu mag a mag a mag ci yoonu murit ah. waaw moom lay sant yàlla bu baax a baax rek ndax sëriñ bi la yàlla suturaal sëriñ bi la yàlla sagal ndax ku ne xam ne ne na nañu bàyyi ba màggal gi ñëw kaa yi gën a yokk ba kenn du tal a màggal waaye bi ñëwee bu màggal gi jub gis na ne tawat bi deltu na gannaaw bu baax a baax a baax ba kaa yeen doon am amatuñ ko loolu day wane yàlla sutura su mu defal Serigne Touba ak sag bu ko defal ah, yàlla mën na fee doxee sax mbir mi gën di wàññiku ba faw ndax sëriñ bi moom ah, lépp fàggu war na ko waxoon ne yaxi iyaaliyal waba allahu xat an wala ilaha illa allahu sama njaboot gi yàlla dana leen fegal mbas mi te bu wax njabootam gi waxul rek njabootuk deret gi waaye njaboot gi ko yaakaar yëpp ak njabootuk islaam gi ndax ummatu ummatu ummatul islaam la njaboote ndax dafa doon yonent bi nga xam ne man naa ne li mu taalif ci loo xam ne sax moo tax mbas mi faagaagalut àdduna bi kenn xamul nu mu toll ndax lu ci ne waajaloon na ko def ko ay xasida ñu di ko jàng murid di ko jàng muy muy muy jeñ ay lor di xëcc ay njariñ te te sax duñ ko yëg waaw nii tubaab yi def nga xam ne dañuy liggéey benn machine sànni ko ci jaww ji muy liggéey te nit ñi duñ ko gis sëriñ bi tamit xaside yi da ci am yoo xam ne noonu la ko def bi mu ko taalifee da ko yéege ci kaw xaside yooyu di aar ak sàmm ak euh, dimbali doomu aadama yi yenn yi di saafara ah yenn yi doon xaside yoo xam ne dañuy faj ah, lu mel ni matlabu sifa yi ak yu yenn yi doon xasida yoo xam ne ay soldaar lañ ku jógee fa war a def naka sunu du noona ñooy ñooy taxaw jëflanteeg yow lu mel ne ba kaana ak euh, yu mel ne moom am xaside yoo xam ne tamit mën naa ne ay civil lañ dañuy civilu rek nekk ci biir lu mel ne faw sëy ni daanaka boo duggee Tuubaa da ngay jàpp ne dara new waaye am na geneen kaaraanga goo xam ne gila gu bët du gu bët du tege euh, tam ne fi waaw tam ne fi waaye mbas mi moom euh, nit ñee demoon rek ba màmm àgg ci dundeen woo xam ne wile àdduna bi mënatu doon a dem te lii amut ah, ndax dañoo demoon ba yàlla ñu génn ko ci euh, ci ci seenu dundeen àgg tamit ci fa ak caaxaan foo xam ne lu mel nii rek moo moo moo mën a defaraat àdduna bi mën a defaraat environnement bi mën a defaraat jikko yi mën a soppiwaat lu bare bare ci dundeen àdduna bi ndax eh, nii ñu taxawee ay weer rek lu ci bari eh, ci caaxaan ñu bàyyi ko bari na lu mu soppi ci àdduna bi suñu fi jógee tamit dana nekk kiimtaan goo xam ne dana mel na ga ñu doon nettali ci sàmmodaak xeet yi jiitu woon ndax ku ne gis na xeet yi gën a am doole ni leen mbas mi jaaxale ba ba ba fii ñu nekk ñoom ñi ëppoon doole daanaka seeni économie normelu na loolu li may wane mooy wax daaniyatullah mooy yàlla rek moo fi nekk kenn nekku fi ku dul moom ah, yàlla mi ngi wane boppam di wane ne man rek maa fi ne sàkk ñëpp so ma neexee ya, lu tuuti rek mën na ko indi mu jaaxal aduna bi yépp ah, ndax limi indi virus kenn mënu ko gis virus lu tuuti la lo xana bëtt sax mënu ko gis ci ci microscope rek lañ ko mëna gisé kon bu démé ba jaaxal aduna bi yépp lolu yalla moy bakko rek di wone ni man rek may kenn kon gëna delu ci mom rek gën ko wétal gën ko ragal gën diko bayyi xel rek lolu moy moy moy liñ jëré moy moy li jëriñ ab julit suñu yaakaar nak lolu ñu muy Mawlana khadim Rasul muy wétal yalla wéetal yalla def ko week lolo tax ñu genn ko natt yum dajee mu daj ko gërëm wa dakar Dakaractu bu baaxa baaxa baax tay ñaan yalla gëna barkel seenu seenub liggéey ci cadre yi ñu jël diko tassaré ba ñaneen mën ko jariño ñoo ngi leen di sant ñoom it bu baax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا